ak waxtaan ak ñan. parce que ñu ngi may wax nii euh, les les forces bon les religieux la société civile. Euh, les recalés ñooñu lan mooy seen seen yoon ci li nga xam ne euh, mooy processus bi li ci des te ñu validé woon déjà. une liste de 19 maanaam ñooñu lay dafa def élection Sénégal dafa mus di élection sérieuse mhm. waxuma yi sérieux wut de. mais élection Sénégal dafa mus di sérieuse mais cette fois-ci dañu am ay ay élection catégorie kii qualité candidat yu bëri. Mhm. dañu am ay yoo xam ne c'est des candidats par ñu am candidat yoo xam ne ñu nga xam ne ñoom dañ leen ne bokk leen rek ñu bokk. Mhm. am candidat yoo xam ne ñoom jaay nañ ñoom suñ pétrole waxaale nañ ko ba pare toog di xaar fale ko ñu bokk jël nañ avance il faut ñu bokk tey tey tey nañ élection am léegi ñu bokk mu am élection yoo xam ne tam âgé nañ foog nañ ne élection yi bu poussé tuuti sa dootuñ mën a bokk. mais dans tous les cas ils loolu intérêt personnel dans tous les cas ils ont validé ci am solo. bu ñu validé seen ticket te coow li ñoom ñu xam li nga xam ne moom moo am li jafe-jafe yi am si processus bi yëpp je pense que bu dee intérêt Sénégal l'intérêt général ak l'intérêt du peuple sénégalais moo leen yëkkati et le peuple est souverain dañoo war a toog waxtaan xool date parce que président ne wax na leen lu leer yaakaar naa ne président discours am dém ku ko dégg bu dee yow l'intérêt de la population sénégalaise rek moo la ñor di nga ñëw toog waxtaan li nga xalaat li ñuy nekk ci rajo yi di wax nañ ñëw toog wax. li ñu xalaat mais pourquoi perdre du temps. toog waxtaan la ñu wax. waxtaan deux waxtaan waxtaan bi c'était c'était bien avant bi muy annulé décret bi est-ce que mënu woon woote waxtaan avant mu koy def jàpp ne fii wax nul n'est au de la loi te ñun ñëpp nous sommes égaux mm-hmm. devant les lois kon su amee ñu jàppu ne kat lii fi am jaarul yoon ñun ni ñu éliminer jaaru yoon problème am ba processus bi tey ñu arrêté. on dit même que les erreurs du conseil constitutionnel sont applicables donc li nga may wax nii même bu bu leen éliminé même bu njuumte amee te la liste génn bañ validé ko dañ ci war a conformé wu loolu rek lañ koy xaar fi mu nekk nii président bañuta organiser élection bañu tey liste boobu jàll mais tey bu liy amee jafe-jafe am ñii xëcc fii ñi xëcc fii lan moo war a am mooy ñu ñëw toog waxtaan